yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi wa sahlan wa tarhiiban bilaa adadi. Shahru Ramadan di weeru barkel weeru sell. seen chaîne bi nga xam ne moom moo di MKTV ak GMT TV fas yéene ànd ak yéen ci programme bu am solo ci biir weeru koor gi ci lépp loo xam ne day bàyyeekoo ci dëkk bu sell bi di Touba rawatina fii ci grande mosquée bi. mu nekk naafile yi nga xam ne guddi gu yàlla sàkk daañu ko fi amal fii ci euh, jumaa ji ci diir weeru koor gi ñu ciy ànd ak Serigne Fallou Mbacké ci teewaayu ko mboolem jullit yi nga xam ne dañuy naafile si fii ci euh, jumaay Touba ji waaye it mbokk yi noonu la ñuy ànd yéen ci ginnaaw tàkkusaan gu gune ci waxtaan yi nga xam ne ñoo ngi ko fi amal ànd ceek ay boroomi xam yu kawe lool waaye ci ay thèmes yu wuute yoo xam ne dafay euh, yitteel ñi nga xam ne ñoom ñoo di askan wi noonu it la ñuy àndeek yéen ci ndogu yi nga xam ne bés bu yàlla sàkk daañu ko waajal di ko baaxee mbooleem jullit yi nga xam ne dañoo war a ndogu waxtu ndogu fekki leen ci yoon wi wala ñu sàkkoo fii nga xam ne moom moo di ci jumaa ji noonu la àndeek yéen ci ay réaction yoo xam ne dañ koy taataan muy ay interview ñuy jël ci kilifa yi ñëw fii ci jumaa ji moo xam ay kilifay diina lañ kilifay aada kilifay cosaan mboolem invité yi nga xam ne dañuy ñëw fii ci euh, daayira Muxaddamatul Xidma ànd ak ñoom weeru koor gi noonu la ñu ànd yéen ci ay reportage ay découverte ay documentaire yu am solo yoo xam ne daañu ko amal ci biir weeru koor gi ci yu bëree bëri yoo xam ne xamu leen ko woon fii ci jumaay Tuubaa ak ci dëkk bi ñu fas yéene cee ànd ak yéen ngir leeral leen ko waaye it ay émission yu am solo yoo xam ne dañ koy diffuse ci biir euh, journée bi ci MK TV ak GMT TV ak seen page Facebook di Grande Mosquée bu Touba kon mbokk yi programme bu am solo bi ñu fas yéene cee ànd ak yéen boo bañee mu xëcc la email page bi nga xam ne moom moo di Grande Mosquée bu Touba ci Facebook wala nga abonné ci chaîne YouTube bi di MK TV wala GMT TV kon mbokk yi programme bu am solo bi moom lañ leen fa yéene baaxee ci biir weeru koorug 1444 ginnaaw gàddaay gi di atum 2023 ñaanal leen koorug jàmm ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké moom ba Bassirou xalif général de Mourides mu gën fa yàgg lool te gën a wér wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.